asalaamaaleykum euh, suñu mbokk internet di safo di seetaan euh, Kéwoulo TV tey dañu wàccoon ci mbedd mi nga amal leen laaju bés bi laaju bés bi tey mooy euh, naka la si askan wi di dundee situation bi am actuellement ci hôpital yi léegi léegi ñu doxal suñu micro trottoir. waa d'accord bi si njëkk mooy dañ koy mettitlu di métti lu famille mu dal yëpp parce que lu métti la quoi franchement ñoo ngi koy métti lu ah, beneen bi ci des mooy wax dëgg yàlla médecin yi war nañu xoolaat seen taxawaay parce que nit moom lépp lu koy lor wala lépp loo xam ne si ne rek lu koy faat la mënul neex kenn quoi te suñu suñu duggee si biir hôpital yi xaj na du ñëpp quoi mais nag à dañuy gis ay manque d'accueil bo xamné dal ne accueil bi dal war nañ ko sétat surtout ñu lu ci patient yi parce que su fekkonte ne du patient je crois que hôpital du exister donc médecins yi ak patients yi ñoo bok hôpital bi kon médecins yi war nañ xoolaat seen bop ci côté bobu dal état tamit jàppale leen gën leen renforcer ci côté personnel ci côté plateau médical ak yu mel nonu parce que vraiment aussi ñom ay jambar lañ mais parfois aussi bu nit ñi bëree xam nga rek amna ci yenn yo xam ay manque d'inattention la mais ñu gën a rafetal sen taxawaay état bi tamit gën ci dougal loxom surtout dans le plateau médical et le renforcement des personnels de capacité. wa xam nga loolu nak c'est c'est un peu complexe parce que le euh, médecin bi peut-être que liggéeyam xajna permettre nako mu yegg fenn fi ci xalé bi fo xamné ne peut-être parents yi xamuñu ko mais lu ci mën di don dal ci aduna discussion la waro a commencer d'abord parce que médecin bi xajna mom moy responsable de wergu gu yaramu xalé bi mais parents yi tamit je crois am nañ ci solo ci décision bu mu mën a donc pour moi dal trouver woon consensus avant dara moo doon gën quoi parce que médecin bi tamit wax dëgg yàlla defu ko pour rey daf ko pour sauver peut-être ku jigéen ki peut-être xale bi donc mais su fekkonte dal daal amoon consensus au départ je crois que coow lépp du am mais loolu yëpp encore une fois manque de moyens la rek manque de moyens rek moo indi yooyu wa waaw hôpital yi lu may wax rek mooy. Euh, médiocrité médiocrité accueil bi accueil bi lolou parce que boy xol suñu soins dafa médiocre ba médecins yi finis, xamuñu lan pas éthique manam nit da nga wara a xam lan mo la fay xaar xam def sa liggéey ak passion mais ñun lolou lañu qui suñu dëkk da ngay gis ko xamné intéressé xey am salaire am ne bu pas mu def fàtte ni moom lu ko tax a amul amul aw jiitaluñu amul si suñu profession té secteur yëpp loolu lañuy souffrir hein secteur yëpp loolu lañuy souffrir looloo waral nak ñuy jankontel li mi am fépp secteur bu nek di soxé man je pense que loolu la dal waaw balaa mu vraiment balaa mi jël da ngay am approbation wa kër gi wa xalé bi ne leen lii ak li mo si nek risque bi ak lii ngay établir moy li ma lay wax rek ñàkk xam seen éthique ak lan moy di xaar ci seen fonction mo waral li yëpp ñu ñëpp Sénégal dañ nekk si dëkk boo xam ne ñëpp dañuy daw pour wuti liggéey waaye liggéey pour man boo koy tànn da nga ko war a tànn par amour mais pas liggéey juste pour fayeeku liggéey da nga si war a jiital amour ba pare xam li lay xaar remplir lépp li lépp li attente yëpp ñu ngi xaar si yow nga remplir ko comprendre nga moo waral loolu da ngay gis sax gars yi dañuy xëy yàqamtee wàcc comprendre nga suñu dara innové wuñu dara suñu dara avancé wul si secteur si secteur bu nekk nag dara avancé wul gars lu ñu yaxam ci 17h jot ñu lam sen sac dem zéro recherche zéro innovation donc nak lolu mo waral nak dëkk bi di soxé ni ah man de pour man waru ñu leen bay dañ leen wara dañ leen wara sanctionner waaw lolu dafa wara am sanction parce que boy dem bay jël décision yu tam démé nonu dafa am processus dafa am protocole donc da nga wara laaj approbation aux parents mi xol laaj conseil wu ñi la jégué les autres médecins eh, avant tout avant d'exécuter li nga wara def parce que lolu amna ci solo mais ñu duñ laaj ay préavis duñ laaj dara duñu kii dara gars yi dañuy jël des décisions personnelles voilà jàpp ni nag waa këru xale bi xamuñu yoon wala xamuñu lu ñu leen war donc loolu yëpp ñàkk xam la donc dañ war a daal di sensibiliser nit ñi di jéem a xoolaat askan bi xool liggéey yi ni ñu koy tànneek lan mooy ñu ciy xaar loolu war nañ ci sensibiliser nit ñi ci côté bi yëpp waaw pour man loolu moo gën a am solo daal loolu moo waral bépp faay yi ngay gis ci bépp secteur. Ah, boo gisee loolu noonu. waaw ah, message ñoo taxawlu bu xam nga waaw bu ñu taxaw bu baax mais affaire bi du doon am quoi xam nga yaa ma gën a xam mais parce que lii nii baaxul quoi xam nga mais fii ngay gis malade ba pare dem hôpital médecin yi waa ñàkk ko faale quoi xam nga xam loolu baaxul ah nit normalement ah waaw saa mu duggee hôpital moom waaw foo ñu respecté ko moo gën quoi mais parce que lii nii baaxul quoi waaw surtout ma Sénégal fii mooy loolu waaw dañoo war a échanger loolu carrément nag waaw waaw ñun ñoo ko war a bañ rek waaw ñoo ko war a bañ quoi war a jàpp quoi mais parce que loolu noonu waaw ñàkk xool la quoi xam nga waaw looloo problème bi quoi ok. mbokk internet di safo di seetaan eh, Kewlu TV eh, lii lañ leen andiloon tey eh, ñoo ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci seen beneen numéro incha allah.